may wax ci yàlla ne lii lay amee léegi lii moo cay am ci rawaxaan laa ko teg. ñi faral di seetaan Yëmbël Vision TV euh, tey ñu seet si Serigne Cheikh Niane dinañ waxtaan ak moom ci actualité dinañ waxtaan ak moom ci liggéey bi muy liggéey dinañ waxtaan ak moom ci combat yi xam te ne taxaw na gis nañ ne combat Modou Lo léegi mu ñëw ak Boy Niang fan yi paas nag am na lu waxul lu am solo waaye nag tey neewoon na bu mu fi ñëwee dina am loo xam dinañ ko wax mu nekk lu leer leer loo xam te ni mbindeef du ko dindi bu ñu jógee ci loolu nag dina waxtaan ci actualité réew mi ak liggéey bi liggéey mu nekk liggéey bu am solo dina waxtaan ci waxtaan bu xóot bu xóot a xóot a xóot te yaatu képp koo xam te ne yaa ngi ci Sénégal rek di ci gis sa njëriñ ak ku nekk bitim réew euh, Serigne Cheikh ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen nuyu di la ziar di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu def jàmm am senegal yal na Sénégal sax si jàmm bismillah Euh, sëriñ Cheikh fi ñuy commencé mooy euh, gis nañ ni euh, combat yi taxaw na combat yi léegi mu ñëw gis na ne am na combat yu jot a jàll. dëgg la waaye nag diggante Modou Lo boo ñaari dinañ ci waxtaan parce que yaa waxoon bu ñu fi ñëwaatee dinañ ci waxtaan. dëgg la waaye nag sa xarit sa doomu ndey gis nañ ne mi bëgg a jël Siteu wala sax ñu ngi koy doxal combat boobu. dëgg la nag nga gisee làmb ji. alhamdulilah ñu ngi koy sant bu baax moom Balla di suñu wël rek di ku baax di nuyu Buri di nuyu Sa Thiès ak ñoom ñëpp di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm waaye combat boobu ci kattanu yàlla hmm. incha allah taala dinañ fexe ba du ko jël ndax bu ko jëlee itam amuloo ko njëriñ. mais euh, Balla bu jëlee Siteu dina ko amal njëriñ parce que Siteu. waaw euh, dinañ ci wax liñ ci war a wax ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla. Hmm. ñu jàll ci leneen jërëjëf sang bi. Euh, am na solo trop fi ñuy commencé mooy gis nañ ne Balla Gaye Boy Niang daan na ko. Hmm. te waxoon nga ne Balla Gaye na defaru dëgg am nga loo ci waxoon loo xam te ne askan gis nañ ko donte sax Balla Gaye sa wóllëre la. dëgg gis nañ ne Boy Niang mi xam ne moo daan Balla dafa jël Modou Lo te Modou Lo Balla Gaye daan fois. Hmm. naka nga gisee combat boobu. alhamdulilah waa xam nga làmb moom li ci am solo mooy doomu aadama bu mu di topp victoire yi. Hmm. doomu aadama bu mu di yaakaar ay sangat yu bari. Hmm. mbër muy bëree bu mu di yaakaar gàllaaj fexeel ba yow muy bëri. Hmm. sa rawaxaan am njariñ nga am samp gu wér am rawaxaan bu wér ba loolu mën nga dem ba dëkk ci abrowaa du saareel waaye di nga gis ñu leen yóbbu ay vaar rek ay nangam ak lu ñu mën dem ñu ci bëree bëri xamuñu làmb ndax làmb lu ci ëpp importance mooy bis bi ñuy bëree ak rawaanu nit ki ak bis ba ak ban heure la ñuy bëre ak waxtu wa ñuy bëre loolu bépp sëriñ boo xam ne xamul lii boo waxee ci làmb di nga échec. ñu topp ñu topp question yi am na benn question boo xam ne waa ji dafa laaj ne sëriñ Cheikh Niane dañ koy gis ne mbirum rawaan rek lay wax ak sarax. dëgg te ku ne xam na ne làmb dafa ànd ak takk galaaj. dëgg la ba fees dell waaye gis nañ ne Modou Lo moom takkatul galaaj. Mhm. ndax sarax mën na la jàppale ci combat. alhamdulilah ñun képp bépp mbër bu ñuy ñaanal ci guddi yu toll nii la wax. duñ la sangat bépp mbër bu ñuy ñaanal duñ la jox nga takk gàllaaj lu tax loolu dañuy jël saraxu bis ba teg ko mhm. jël sa tur teg ko jël sa turu yaay teg ko jël saraxu rawaxaanu bis ba teg ko génn sarax ba boo àggee nga am victoire léegi nag saraxu bis dafa am solo ci mbër muy bëre saraxu bis dafa am solo ci ki nga xam ne dafay xëccoo kuy xëccoo mbir moo xam kuy dem élection di xëccoo victoire sa bis ba boo ko xamee ci kattanu yàlla yaay am ndam. même élection. même élection même mbër mi nga xam ne moom dafay sàkku mbir bu xamee sa roxo bis ba dafay daan même équipe bi nga xam ne mooy football ba xamee sa bis bi xam rawaxaanu bis bi bu génnee sarax bi mooy am victoire du jar sax gàllaaj du jar sax gàllaaj incha allah. Euh, moo tax boo gisee chaque jour nga may tagal làmb may wax ci yàlla lii lay amee léegi lii moo cay am. ci rawaxaan laa ko teg incha allah. Eh, am na solo trop mais dafa am loo xam dafa jaaxal ñu baree bari dëgg Serigne Cheikh lan lay seete ba lépp loo xam te ne wax na ko dañ ci daan dig suñu bët. sama mbir génn ak rawaxaaniya moo tax ma ne bépp dama ànd bu gis ci àddina mu fotal loxoom yónnee ma sa ñetti terrain yi laay soxla. terrain yi noo koy xamee ci terrain yi. doomu aadama bis boo ko fotoo yónnee ma dañaa la wax sa lépp yi àddina bi nga juddoo ba di ngay màggee. Mhm. yaa ngi dégg bu fekkee à distance la nit foto loxoom jox ma jël turu jox ma jël turu baayam jox ma jox ma at ba mu tukkee ba pare foto loxoom yónnee ma mu mm. nool teg diglu ma billaahi dinaa la ko wax lépp yi addinaam bi mu juddoo ba ni muy màggee insha allahu taala loo xam ne dara du dara du ko jënde ci kàttanu yàlla dafa am loo xam ne dafa jaaxal ñu bëree bëri sëñ Cheikh ñaan mooy faral di wax naan euh, képp ko xam seetaal naa ko dëgg la yére ba nga solo bu la sa yaay liggéey lépp laa lay wax bu la neexee sama xol la yére bi nga sol exactement yére bi boo xam ne couleur yére bi nga jiital bu la sàccee moo wax la ka la sàcc wax la turu kala sàcc buñ la liggéeyee moo wax la gën a liggéey wax la turu gën a liggéey loolu rawxaan moo koy génne. rawxaan rek. waa léegi man mi toog fii ne la làmb ji day gaaw nii nii lay def est ce que bi ma koy wax est ce que bëri nañ man ma taxaw fii ne la Ousmane Sonko dinañ ko tëj lii ak lii est ce que tëj nañ ko pare ma doog ko wax man mi taxaw fii ne la nangam ak nangam ak yeneen ak yeneen est ce que loolu xewoon na affaire ma koy wax rawxaaniye mooy lu wér ci àddina yàlla daf ko bind ci lawxil maxfuus te du ko effacé abadan doomu aadama bu tukkee nit boo ko seetalee sëriñ bu la seetal yow mu tukki ñaanal la doo gis résultat yow mu tukki sëriñ bu la seetal génn la seetal doo gis résultat sëriñ sëpp nañ génn commentaire garaawul parce que li ma wax xam-xam la. dinaa ñëwaat ci loolu. may ma àggale uh-huh. waa léegi nit ki nga xam ne dafa tukki ci dëkk waa dëkk seetat waaye dëkk ba mu tukki xanaa am na rawxaan bokk waa nit ki d'accord naa nga sangat ko ñaanal ko génnal ko ay sarax orienté ko bid orienté ko biddiwam orienté ko raw xaaram waaye nag ba àggee raw xaana dëkk ba di ko fitnaan nag léegi nan la fay amee dara mhm. d'accord naa nit ki nga sangat ko ba li lépp wuy si ko ci àddina li nga ko ñaanal gis nga ko waaye raw xaan ba moo ko mayul jàmm mhm. raw ba raw moo ko mayul jàmm tukki ñett moo ciy am ban ak ban tukki ñàkk di dem ak a ñëw waaye seen njaboot duñu am lu lekk boobu am na am ñoom saa yu bëggee ñoo ñëw walla nga tukki doo mën a ñëw waaye sax njaboot duñ manqué dara wala nga tukki doo ñëw muy nga dee fa am solo trop yaa ngi dugg ci deman boo xamante ne sax bëggoon naa ci dugg mi dangaa ngaa xaw a gaaw ba dugg ci sax parce que li ngay wax moo am solo mais dafa am loo xam dafa jaaxal ñu bëree bari mbirum galaaj dëgg-dëgg ñu bëri na jàpp ne galaaj. takk galaaj rek mooy tax nga am victoire te yaa ngi faral di wax naan rawxaan rek mel ni sa raxu rawxaan dafa am. yàlla suñ borom dafa wax ba tilka ayyaamu nudaawiluhaa bayna naasi yàlla dafa jël bis yi bu def ko muy wëndeelu ci vingt 24 heures sur 24 bayna naasi ci diggante ak nit ñi yàlla moo def loolu mais bu mais bu loolu amee ba pare waa léegi bis bi nga xam ne mooy taxaw bis bi ban rawxaan la am. xam nga du ma sëriñu taraxiyaa sëriñu taraxiyaa mooy koo xam ne dafay am ci lum yaakaar ci doomu aadama yi sëriñ bi nga xam ne mooy dox ci sirru dox ci jalaal mooy ki nga xam ne day yaakaar boromam yaakaar yu sallallahu alayhi wa yaakaar li am mbi li nga xam ne xam-xam bu wér bi mu toog loolu ci lay yaakaar ba ba muy dee day jëriñ ak day jëriñ ay sëtam kon du ma sëriñu taraxiyaa hmm. na na leer euh, am na solo trop dañuy continuer ak yow ba tey parce que yaa ngi wax lu ama am solo dañuy faral dégg parfois nga nit euh, li xam te sëy la di nga gis koo xam te day takk kenn te duñ am lu lekk xam noo ko expliqué noonu ñu bëree bëri nag jàpp ne euh, takk jigéen mën na loo tëj. mën loolu lépp ci cadre rawxaan la. Mhm. doomu aadama mën naa dëppoo jigéen seen ñaari wërsëg yi ànd seen ñaari rab yi du ànd. ah bon. waa ji lépp lu mu bëgg am ci waa ji waa ji koy defal waaye duñ ànd maanaam dañuy xuloo rek. te dinañ am njëkki seen ñaari rab bi mën nañoo ànd ngeen nga xam ne bi mu ko joxee mu ànd ak moom bu ko joxoon mu ànd ak moom fa lay sax ba abadan dinañ laaj waaw kii nan la ko toppee waaye seen ñaari rab yi ñoo ànd waaye du am lu mu lekk ñaari rab yi ànd dafa am ñaari wërsëg yi ànd dafa am ñaari àndandoo yu ànd dafa am waaye nag ñaari chiffre yi ànd dafa am dat dale nit ki am na ci bis bu muy juddu par exemple mercredi xam nga bis bu doy waar la. mercredi. ñii nee nañ bu leen ci tukki ñii ne bu leen ci sangu waaye ku judd ku juddu ak ku juddu lundi mën nañoo ànd. maa hmm, ngi doon comprendre ci am solo. ku juddu mercredi mën naa rey ku juddu lundi. ku juddu sodi da ngay ubbeeku am bayre waaye ku juddu sodi. nan lay ànde ku juddu mercredi yàlla dafa sàkk juróom-ñaari bis mhm. juróom-ñaari bis yooyu mu am juróom-ñaari rawaxaan am mhm. juróom-ñaari malaayika léegi bis boo gis ci àddina am na rawxaan mhm. moo tax man ne la doomu aadama dafa war a xam saraxu bis am na ci bis yoo xam ne muy lëndi ak sodi ñaari bis yooyu rawxaan ya taxaw rawxaanu wërsëg la boo ci génnee saraxu rawxaan ba carrément da nga am wërsëg ci kàttunu yàlla waaye nit gis nga ko rep ba ne mystique amul nga foto sa loxo yónnee ma billaahi fa ngay jaaree mhm. xam ne gàllaaj am na fa nga jaaree xam ne yàlla may na ismullahi al ahsam fa nga jàllee xam ne yàlla may na lépp ci àddina lépp lu ma mas wax ci àddina dañ ci teg bët ba ilaa yomi abat dara du ko dindi insha allah euh, dara du ko dindi waaye doomu aadama ci boppam mhm. bu foto loxoom yónnee ma bu fekkee gàllankoor moo ko tëj mhm. gàllankoor bi fan la ko tëjee gàllankoor bi ci biir kër gi la wala gàllankoor bi ci àll ba la wala gàllankoor bi ci mbedd mi la wala gàllankoor bi est-ce que sëriñ xaatimul ko jox ko xaatim ba xaatim ba maanaam xaatim ba tëj ay mbiram loolu lépp dafay am sëriñ xaatim jox la xaatim ba tëj say mbir am na ci ñoo xam ne dañoo war a sangu am na si ñoo xam ne waruñoo sangu am na si ñoo xam ne dañoo war a takk am si ñoo xam ne waruñoo takk am si ñoo xam ne sarax mooy doxal seen affaire waaye kii xëccoo ak xëccoo bi mu mën di doon na xam saraxu bis bi billaahi politique bu mën di doon nga bëgg a jël réew mi su ma doxee saraxu bis bi nga jël ko barki alxuraan ah sëñ bi wallaahi azim mbirum làmb mu mën di doon nga bëgg daan su ma doxee saraxu bis bi boo ko defee ba àggee da ngay daan barki alxuraan bu la neexee sa bu laal benn gàllaaj bul duggaloo xalawa kenn ak lu mu mën di doon ci àddina ak lépp looy mën di yóotu su ma la waxee saraxu bis bi saraxab sarax ba def ko di nga am victoire parce que lu yàlla bind ci lawhil mahfuz la te du ko effacé bis boo gis ci àddina am na sarax doomu aadama bi xëccoo ban bis la war a xëccoo doomu aadama buy faatu ci bis lay dee doomu aadama buy feebar ci bis lay feebar doomu aadama buy am doomu aadama doomu aadama doomu adama buy umu ci bis lay umu rab rab rab même rab buy seq ak yow sax ci bis lay seq ak yow même ngelawal seytaane ci bis la lay dugg kon nag bis mooy lépp xanaa wala parce que lu yàlla bind ci àddina la billaahi politicien bu ma wax saraxu bis bi boo ko defee yaay am victoire bu la neexee siwal ñëpp xam la bu la neexee bul siw bu la kenn xam dafa saraxu bis bi wallahi asim nga nga nga jël réew mi barke am lay faral di wax ñu bëree bëri naan suñuy seex lu tax wax loolu parce que da nga gis ku naan noobal ma sama soxna yow nga ne soxna kenn ko noob. xam nga man xam-xam laay wax. Mhm. waxewuma pour commentaire waxewuma pour tiibul muy bànneexu bakkan. Mhm. waxewuma pour concurrence du ma masan na mu abadan jël naa lépp jox ko yàlla suñu borom te tabaraka la waaye damay wax li nga xam ne mooy réalité est-ce que yaa ngi comprendre à chaque fois damay insister ci benn affaire muy lan ku tukki kenn ko seetal. parce que dama ne la doomu adama boo gis ci àddina dëkk ba mu jëm dëkk ba am na raw rawxaaniya. doomu aadama boo gis ci àddina doomu aadama bi am na rawxaaniya léegi nag moom rawxaanam ak rawaan dëkk boobu bu mu méngoo du mu fay amee dara waaye ñaanal ko waay kooku du am dara du ubbeeku loolu lu xam nga ngaa man du ma sëriñu taraxiyaa wax naa la ko leer na. sëriñu taraxiyaa du ma sëriñu so du ma sëriñu taraxiyaa. am na solo trop bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci euh, li ma la doon laaj sànq. Mhm. ñu bëri bëri dañ naan soxna kenn du ko noob. dëgg la lu waral lool yow yaa wax na soxna kenn du ko man maa ko wax a personne. te li ma li tax ma wax ko ci xam-xam bu wér laa ko teg. Mhm. waaye sëñ bi ñaar ñuy sëy foofu dëj lañ fa wax mag ñi dëj leen koy wax ñu ñu am luñ jëfandikoo ci seen ci seen suuf ba nga xam ne buñ seqee ñoom ñaar mhm. kenn du bàyyi moroomam loolu la ñuy wax dëj wala ñu def ci kër gi loo xam ne kenn du mën a dem loolu la ñuy wax dëj mhm. waaye ki nga gis bëgg ko bëgg ko soxna kooku la ñuy jël nopp ko leer na mhm. waaye ñaari buñ sëyee kenn du leen nopp ni dina dem ci sëriñ ne ñàng naa sama jabaat fu ne mënuma koo jàpp lu mel noonu la deuxièmement tubaab tamit kenn du ko nopp ba jàpp ko ah bon tubaab nit dana ñaalu tubaab bi noom naa ko tubaab bi sama patron tubaab bi léeg léegi lii ba sonn jàppuma ko tubaab bi bëgg naa koo takk def ba sonn kii parce que tubaab da ngay jël rawaxaanam boole ak sa rawaxaan neexal ko ay jublu la waaye tànk yaa ngi koy jël di koy yeewu wala nga koy yóbbu ci ay sëriñ ñu koy def ay mbir duñ la ko jàppal abadan hmm. tubaab da ngay jël rawaxaanam neexal ko ba pare wala nga ba pare nga bëgg ci moom alal danga koy xirtal jël ay rawxaanam am loo ci def jël turam teg ko jël sa turu yaay teg jël sa tur teg ko ñu jël loolu lépp teg ko jël bis bi bis bi nga indi aajo bi xam nga bis boo gis ci àddina rawxaanu bis moo ëpp doole loo gis ci àddina ñu jël ko teg ko am luñ ci liggéey misaal laa nga am loolu macha Euh, am na solo trop bu ñu jógee ci lool dana ñëw ci mbirum rab. rab nekk loo xam te ni dafa jaaxal ñu bëri. rab yow nga ne jigéen ñu. bëri ah. may ma rek mu ñëw. xam nga lu tax. Uh-huh. rab ak ya uh-huh. ak jinne ak xuddaam. Uh-huh. du ci bari sëriñ dañ koy jaawale. doomu aadama est-ce que amul jinne ju nekk ci moom di ko yàqal jinne ju nekk ci moom di yàqal jinne mooy lépp lu am ci alal da koy yàq rek da koy yàq rek. waaye bu fekkee moom amul jinne waaye soxna sim takk moo am jinne rek jinne ji di yàq alalam nag ba tey moo amul rab de amul jinne de kim takk moo am rab rabam di ko yàqal moom nit mën ngaa bañ am benn rab moo tax yooyu lépp dafa jëlaat ci li saxaara rek nga xam rikki bu ñëwee moom dafa tollu xom est-ce que moom tekkul jabar joo xam ne rabam moo jàpp moo moo yàq ay affaire wala est-ce que nekkul ne dafa am kum tooñ kam tooñ ay ay affaire di yàq ay affaire am. wala est-ce que nekkul ne dañ koo liggéey. wala est-ce nekkul ne dëkk ba mu nekk ci boppam rawxaanam ak rawxaanam méngoowuñu wuñu ki la foog nga xam exact affaire bi lan la ak fan la ak ndaka la est-ce que sarax mooy doxal mbiram wala est-ce que dañ ko war a sangat wala est-ce que bàgg la wala est-ce que dañ ko war a duggal xalwa askar ko jël ko 24 sur 24 dóor ko mbir yi rapidement léegi mbir ki doomu aadama bi lan ak lan ak lan mooy doxal ay loolu moo jot a xam. doomu aadama mën naa am faru rab mën naa am caru rab mën naa am jinne ji ko yàqal ba tey xam nga ko ñett yooyu benn bokku ci. faru rab bu nekk ci yow di la yàqal di la manipuler à chaque fois di njaagaloo sa xel mi ngay fooyee sa bopp loolu day am. loolu faru rab moo koy def. ni mu koy defee góor noonu la koy defee jigéen faru rab caru rab di yàq sa àddina. lépp loo am muy yàqu ko mënoo taxawal dara am na jox xam ne ñoo fayeeku na nañoo fayeeku lu dul jeex ci àddina waaye yére sax dañu ko am yére rab bi moo lay xirtal nga koy joxe di ko joxe ba mu jeex takk ba paree nga rëccuwaat ko loolu dafay am macha allah mais rab booba nag ban façon rab la ak nan lañ koy saafaraa est-ce que faro rab la wala est-ce rab la wala est-ce que jinne la wala est-ce que raw xaanam ak raw xaanam rek ba ñoo méngoowul loolu lépp dañ koy liggéey doomu aadama bi bu ñëwee danaan ko foto sa sa ñaari xolal sa ñaari foto loxo yi ngay foto yónnee ma boo xoolee sa lépp yi àddina billaahi wal kitaab doomu aadama lépp loo xam ne daf koy xëccoo ci àddina ak ndab képp koy wut ndab maa la ko diggal bul di xëcc xolal bul di ñaanlu bul di sangatu bul di def ay mbir xamal bis ba rawaxaan bis ba ban heure lay taxaw exact génneel sarax bi wallaahi la asim nga am victoire Mmh. bisimilah. am na solo trop ba tey dañuy dem ci mbirum bayra bayra nekk loo xam te ne politiciens yu bëree bëree ba dañ ko manqué lan mooy bayra dëgg-dëgg. doomu aadama dafa am lu ñuy wax bayre nit kuy jaay bëggul bayre kooku ñett lañu koy defal da ngay gis ne damaa bëgg bayre jaay nga dem ci sëriñ mu ne la kaay ma defaral la bayre jaay. te kuy jaay kenn du ko defaral bayre ñett eh, lañ ko defaral léegi am maa politicien bi nag imma politicien bi nga xam ne moom moo soxla takk bëgg ay mbiram dox kooku kenn du ko defal bayre kooku raw xaanam dañuy kàttanal ba bu taxawee rek raw xaanam day am jëm ba lépp lu mu sàkku ci nit ñi wala lépp lu mu bëgg ci askan wi ñu defal ko ci kàttanu yàlla maanaam mën ngaa siiw sax ba adduna bi yépp xam la mm-hmm. waaye suur woote bi ba jotee nit mën naa jógee fee kenn du ko xam mu ñëw def saraxo rawaanu bis bi rek bis bi def sarax saraxo bis bi mm. billaahi dalay gañe wallahi alazim am na solo trop ba tey dafa mel ni amoon ci waxtu jeex na waaye dañuy continuer tuuti dana am question bu la laaj parce que mbirum papier ñu tënk ko foofu rek ñu tënk ko foofu ndax dama am ay gan yu may xaar te mm. am na ci loo xam ne mënuñ koo kii mbirum papier waaye nag dañ jël lépp rek tënku ci li saxaar waxaane ja di di la wax ne àdduna yàlla dafa sàkk bis sàkk waxtu sàkk rawaxaan sàkk malaayika sàkk jinne doomu aadama bu mu mën doon ak képp ku may siifur sa fata loxo laay soxla ma wax la li lay gàllankoor lan la wax la say mbir wax la say lépp ñu tënk ko foofu. dooy tàggatoo ba bañ ñoon di sant yàlla di sant yàlla di julli ci Yonent bi alayhi salaatu salaam di wax na yàlla ñëpp am jàmm sëñ bi Mansour Faye ku baax la nañ ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ak abadan ndax lépp luñ mës a diglante moom def na ko lépp luñ ko mës a wax def nañ ko fépp fuñ ko mës a yebal dem na fa lépp luñ ko def loo ci lu baax ci wàllum jumaa ak wàllum social bu jëm ci wàllum diine def na ko yàlla ko yàlla dimbali te kàttanal ko yàlla yàlla def ñëpp am jàmm yàlla na Sénégal sax si jàmm jëf